yaa grand ñoo ngi lay ziar di nuyu Sow juste xam nañ ne xat nga te da nga yàggam juste quelques mots ci ki nga xam ne sa fans la woon tey laa di ba pare ñëw teg lu mel nii. Torres Torres. yaa dina delloo. Uh-huh. comme ni ko waxee sans plaisir. ay saanam laa doon rafetlu ba tey jii man ma ñëw ci concert am ci stade. ça fait quelques années ma doon fi ñu sant ko samay ji sax boo gisee wan lii rek a jóg yaa ngi inspiré waaw sans plaisir sans douleur c'est quelqu'un boo xam ne je l'ai vu arrivé jaar say compétition gagné mais ñu def le peuple réclame son show de waaw waaw mu ngi ñëw loolu mais juste pour dire gros bi gëm awan leen non non euh, am na yoon bu ñu bu ah, baax pour moom mooy seen personne tey liggéey yi mu def yëpp achèvement bi moo nekk Italie Sénégal la début mm-hmm. donc maa ngi koy souhaiter une belle carrière sarif mm-hmm. Sénégal yëpp akadone bu mu feesal ko et show of the year aussi mm-hmm. euh, comme tu l'as dit peuple mi ngi koy xaar on est en train de réfléchir ci benn date ak benn lieu ah. boo xam ne peuple bi yëpp dina kontaan ah. donc d'ici euh, peu de jours rek lañ ci communiquer inchallah inchallah kontaan nañ trop jaajëf eh, merci tas ragal du jéggi raay yéen ñoo ngi teg ci maître duñ ko téye di raay bis quoi dootul xëccoo fee bi waay ci xut na lépp doore te réew ñëpp a jéggi taar kii rek kii fii rek caaba géej a waay di def ci bopp ko baat ci naan te te waay dañuy oyof di ah bëre fa dañuy oyof di def musique maa koy représenté man la ñëw si damal nga wax sa papa sa ku ma ko buum si man maa leen xóor man la muy El Hadj Diouf yaa ngi soog a gis sama réew ne parce que ñëpp laay tuut di nga dem ci kaw yàgg lool fa di daanu rab ne leen maa ngi ci suñu dañuy maa nga xam di ko ci gërëm bi yàgg ko di nga na moo rab suñuy laa ngi sa taati laa yàgg moo lay di doomu resta sa nga doomu wëpp ak yar di nga sax di mag coob hey hey what the fuck barka xeetu rab bi may topp ci yëpp ko def ci génn ci génn jaay topp ci génn bi di gaaru waale idzie i raj Jednoni będzie manie, tylko drugi waj Nie składę, musi nie zrobi łaj Czy budę lepiej do rękę, nie będzie nie daj Hej, no, kosty, no, kosłe, nie będzie mi raj Jednoni będzie manie, tylko drugi raj Składę, musi nie zrobi łaj Czy budę lepiej do rękę, będzie nie daj Hej, i rozdziały, nie nie waj Wiele ci mam, to zobaczy na mnie to łaj du dañuy oyof di bëgg a baax bëgg a baax dañuy oyof di bëgg a baax

I got a block. I left the block. I left the block. Block is someone who passing in my block. You want kind of someone? I represent my people. Like a second teacher. Then I do not myself in someone. So we get that arrow. Number one. To make the dream good. Listen, look who we do. I'm going to take you. Listen, look at my One little cow. Rockefeller. Rockefeller, yeah. Yeah. To the diamond, from a pull of cover. Hello, Richie, yeah. Shine from Rockefeller. Yeah. I am gonna go. Nigga, put the flow on the job. Yo, yo, yo. We don't give a shit, some money at the thousand night. You can be nigga, do shit for the local overnight. Drop a night, club in a sick pillow when the girls arrive. Pull up by the club, we the summer cars are We stop it, give it, you just a bit of a local. We show the give it, you just the best if you bi kii bari sax sa bëgg si suba yo tàggu rek sa kii kii la kii la egg la loo soo moo tëgg wuñ ne segg la su tey de bazuka musica dig sa ne yàq sa gaalu xaj nga yàq loo tànk spirituellement sa ci bàgg nga si si sa bënd bi soo ko di xol la jàng ngay si si sa bënd bi boot ëmb bi ci rab bi jox lu góob ëmb bi douze quat bu woobu yaay jël pënd bi one time boo def lii doo ko daawul di woo daawul fës amul foofu yeah two times shut the fuck up rumo let the fake of real three times yeah before I kill him LMUTA yeah yeah where the hell we going to be dollar where the fake race table taranta nothing they pay up laranta said something like you don't even need this and Gucci took the king but they ain't money I see me secular mama left the kids like that she probably said it popular play it up to me nothing I pull up we popular in the calculator that's what she see me from the guy they want to take it back take it up can't we get the winter they young and up to back nothing that's a legend stuck you with the Marga da ke kofo yu go wandi jagu Nyadi international to whistle to left

nga loo xam ne moo la metti ay eh, tribune bi naka waar sama gars yi ay eh, jug taxaw la waay sama gars yi jug taxaw la bu ma Moussa Deme tribune bi wala boog sama gars yi xoolal ku nekk si ñun am nga loo metti mais am na ñoo xam ne li xew Mali moo leen metti am na ñoo xam ne li Macky Sall yore nguur gi moo leen metti ku ci nekk am nga loo xam ne moo la metti xam nga lan laa bëgg ñu fayee ko baaraam yëpp ci kaw laaj Shut the fuck up! to just grab you. Someone like that, my little dick had to grab you. Fuck you. That's a young bitch hard. Straight the drag off. Got in the roof right at it. Fuck bitch, shut the fuck up, you can like this. Bike like your head. Put that the leg. Right now, you say, next one. Put up. Yo.

Thank you, Kina. Thank you.